donte ni matériel bi mu yor bariwul góor gi ci marché okas gii lay liggéey saay bu xëyee day ñëw di tonni mbalit mi ci pàcc bi bokk ci xal yi gën a mag ci bile bu jaayukaay. ba sëñ Baara nelawee ci laa jaar ci marché Ocass fii tase fee jigéen ñi ñuy jaay jën ñu ne dañoo bëgg ku leen di liggéeyal ma ne leen ah man de bu ngeen ma di fayee mën naa leen di liggéey. di ci liggéey sëñ bi juróom rek laa leen di laaj. opéré dana am 4500. dafa laaj employé fii ñaar rek a fi ne man at Diop. fi muy defar nag ci fanweeri mètre kott lay toll su ko weesoo ci yeneen bërëbe calte gu jéggi dayoo moo fa am ngir jënd ci fii ci marché Ocass bu tubaa faaw rekk nga xuus ci ban bi mbalit mi moom kenn waxaalewu ko kenn mënul nooyi ci bile bërëb ndax xet gi di jóge ci ndox yu bon yi taa ci mbedd mi. day gën yi ñuy jënd ñàkk pexe mooy tax ñu jënd ko ndax ñii di dugg si si bile marché xam nañu ne lu ni mel mën na leen juróol ay jafe-jafe si seen wàllu wér yaram waaye amuñu pexe ñoom ñëpp nag mairie bu Touba lañuy ñuy joxeñ baaraamu ci mbir mi ne nañ si lu ñeel wàllu ca tak cell mairie bi defu si benn jéego bu am solo. dëkk bi amul maire am dëkk moom amul solo Touba bi tër bi yokkati nañu saa waaye gisuma bi bi def gisuma ko. assaini ngeen gis nii mais mbedd yi ñoo gën a raw. nii la marché Ocass bu Touba mel te ñaari fan. dong de ci màggal gi marché Ocass di marché bi gën a mag ci dëkk bu sell bi la